Euh, loi d'amnistie euh, léegi leer na leer na ne euh, président dina saisir l'assemblée mercredi la question même même au sein de cette voilà même au sein de cette assemblée aussi CICAD la loi dafa diviser les gens cette loi d'amnistie elle divise les les les les les les Sénégalais elle divise l'opinion est-ce que loi d'amnistie ci période bi ñu toll nii ak li ñu passé yëpp est-ce que c'est une loi opportune Très bonne question. Très bonne question parce que toute loi d'amnistie divise. Parce que amnistier, c'est quoi C'est pardonner, c'est faire oublier, c'est effacer des infractions, parfois des crimes ou délits qui ont été commis. Et souvent, délits yooyu ak infractions yi nga xam ne da mais dafa am ñoo xamante ne dañ ci subir ay préjudice am na ñoo xam ne lakk nañu seen kër. am na loi d'am ma ma ma moi j'ai connaissance am na ñoo xam ne dee nañ de deux lois d'amnistie qui n'ont pas divisé le les les les, les Sénégalais loi d'amnistie bu Mamadou Dia j'ai remonté un peu le le temps de l'histoire je ne trouve pas d'éléments peut-être que dafa yàgg. la de d'amnistie loi bi kañ lañ ko adopté. 74. fee kañ la woon. 62. Euh, 12 ans. Et purgé na. Oui, 12 ans. Et purgé na, il a il, il a purgé une partie, une de la partie, de la voilà. de la peine. Donc donc foofu les mémoires. Ça, ça n'a mais, pas... mais mais mais fii c'est récent. Voilà. Euh, 93 ou 92 92 defe naa ou 93 sur les, la la crise casamançaise. C'était pour panser les blessures. Il n'y a pas eu de contestation, on s'en souvient même pas. La seule loi d'amnistie bi indi controverse. Loi d'amnistie bu Casamance boobu. Voilà. parce que d'ailleurs Madiambal Diagne mi ngi koy rappelé tey dans son lundi mi ngi koy dem ne d'amnistie bi ñu ko defee ba ba ba ba am ñu ñu génnee baal leen ñu nekkoon dans la rébellion ils ont fait d'autres opérations ba nga xamante même armée bi sax am na ñoo xamante ne ndax daf leen naqari woon. waaw mais bi ñu gën a contesté mooy la loi d'amnistie de dans l'affaire maître Babacar Seye la loi boobu aussi divisé na non loi d'amnistie moom noo def mu divisé. waaw mais bu 2005 bi moom moo gën a nekk loi d'amnistie bu bu bu bu bu sujette à à à controverse mhm. ah et nag moo nar gën a nekk loi d'amnistie sujette à controverse non seulement fay yàggul mais y a beaucoup d'explications que le gouvernement nous doit. non seulement fay yàggul comme vous dites mais ma yokkoon na ci sax leneen c'est que les faits n'ont pas encore fait l'objet de jugement dañu bëgg koo effacer comme oui, ça les faits n'ont pas encore fait l'objet du jugement mais loi demande deux choses très importantes ça demande du courage pourquoi parce que l'opinion est divisée gis nga quand tu es un homme politique mais su fekkee nag l'opinion est divisée rek nga ragal dellu ginnaaw attention mënoo politique wala wala wala matoo njiit wala nga bëgg a jël décision ni ñuy yuux rek nga daw mais mun xam nga homme politique lan la c'est une question de responsabilité individuelle dans le secret de ta conscience gis nga am na décision yoo xam ne soo koy jël même dans ta propre famille mun nañu bañ a ànd ak yow ta propre famille politique mun nañu bañ a ànd ak yow une partie de l'opinion mun nañu bañ a ànd ak yow mais gis nga soo demee ba jàpp ne yow d'après ta propre lecture de l'événementiel politique soo demee ba jàpp ci ne yow à partir de ton ta propre nga jàpp ci yow ne par rapport à ta propre conscience et par rapport à l'idée que tu te fais de la stabilité politique de ton pays par rapport à l'idée que tu te fais de l'exigence et de l'impératif de réconciliation nationale amnistie bi da nga ko soxla def ko mu neex na parti politique bu mu neex coalition bu mu neex organisation de la société civile bu mu neex nga am ci xalaat mais yow dafa am benn préalable c'est le préalable analytique de la situation globale mais gis nga soo analyser gis ne loolu la la intérêt wu réew mi won def ko président Macky na foofu la toll xool na ko nit ko ci fànn yëpp natt na ko xool na conséquences yi tey am na ñu fa jël parole ministre Samba si wax na ko nee na ñun de suñu parti mënuñu comprendre si boo xamante ni am na ñoo xam ne rey nañ leen ci bus ñaari ji xale jigéen ñu dee munuñu ko ma am ba amnistie boo xam ne taal nañu ay kër jàmbur lakk nañu magasin jàmbur. lakk nañu l'université. lakk nañu l'université donc loolu wax na ko mais président ne ko dégg naa ko waaye nag dafa attention de du dañoo du du du du du du dañ ne rek loolu garaawul de garaaw na torop waaye nag est-ce que jàmmu réew mi est-ce que exigence de réconciliation nationale est-ce que exigence de nous retrouver pour essayer de taire nous créer li nga xamante ne aujourd'hui ça peut même hypothéquer notre stabilité politique et notre économie jarul ñu def amnistie chacun peut avoir son avis et moi je respecte tous les avis mais le président dit moom position bi mu nekk nekk nag celui qui prend aussi la responsabilité ah parce que moom la l'histoire jugera si avait raison ou tort. mais de man faire. mais il a pris la décision besoin... souverainement de le faire. dañoo tolloon moment boo xam ne mois de juin président de la République avec son gouvernement ak les services compétents dañoo ne il faut restaurer l'autorité de l'État. ils l'ont restauré. foofu nag da nga may permettre ma wax leen maanaam gis nga àddina nag xam nga sànq dama doon wax ci institution yi ne la démocratie république ak état su bànqaas bu nekk institution bu nekk defee li mu war def rek sant leen yàlla te xam ni yéen am ngeen réew boo xamante ne mu ngeen ci am fierté assemblée wu defoon nañu la ñu def. président defoon na li mu def conseil constitutionnel def li mu def ñu passé tourner la page dem affaire amnistie noonu la mel gis nga suñu tollee ci restaurer autorité de l'État dañ koy restaurer suñu tollee ci jàpp ni dugal kaso dañuy jàpp ni dugal kaso suñu tollee ci sànni grenade lacrymogène da ngay sànni grenade lacrymogène mais nag soo demee ba def ko ba pare réew mi évolution réew mi laaj leneen laaj yeneen posture laaj beneen euh, doxalin foofu tamit il faut pas mais est-ce que sénégalais yi. mais soo yàppee ni war ko juger juger ko. amuñu mais bul wax defal naa may ma foofu rek bul wax ne man policier laa comme daal léegi dañuy am amnistier man léegi ku ñëwati toj du ma la jàpp. loolu da ko war a jàpp parce que yow xam nga la mooy sa liggéey jàpp ko kenn waxuloon ndax dañ koy juger wala dañ koy baal wala dañ koy amnistier sa yoon nekku ci sa yoon nekku ci may mun a nduur fay dafa am liggéey bu muy def ci kii ci télé bi ñu def de. yow dañ la ne su amee trouble à l'ordre public danga war a restaurer l'ordre public def ko après luy am sa yoon nekku ci magistrat nga jàpp nañu nit dañ ko accuser luñ ko mën a accuser juger ko selon ton intime conviction et ta conscience ëllëg dañ koy gracier sa yoon nekku ci dañ koy amnistier sa yoon nekku ci mais yow defal sa liggéey waaye munoo par exemple nekk magistrat ñu yow indi la nit nga ne ah, kii de politicien kii de su fekkente ni da nga koo jugé wóorul ëllëg de policiers yi mun nañu gracier wala ñu amnistier te non. mais le besoin. da nga koy exercer xamul ndax te lool loolu sax dañ lay respecté ëllëg dañ lay respecté dañu naan yow bi nga yoree biir sa responsabilité daw loxo. mais sauf que sauf que monsieur le ministre. la plupart à chaque étape il faut des actes pour cent des actes qui vont être visés dans cette loi d'amnistie benn leeraluñ ci sénégalais yi. Mhm. dafa am un sénégalais boo leen jël jàpp ko tëj ko ci kaso ñu ne moo nekkoon le principal opposant ñu ne bu bu élection présidentielle amoon xëy na mu gañe ko. ñenn ñi sax dem ne premier tour la koy gañe mhm. ñu jël ko jàpp ko ne ko ràpp ci kaso bi ñu ne. dafa def complot contre la sécurité de l'État atteinte à la sécurité de l'État euh, attends j'ai le chef appel à l'insurrection euh, à l'insurrection man kay fatoon naa affaire bi ñu ne waa ji il s'est rendu coupable euh, de d'appel à l'insurrection association de malfaiteurs atteinte à la sûreté de l'État contrôle complot contre l'autorité de l'État acte et manœuvre à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste man mosuma gis terrorisme fu ñu ko fu ñu ko fu ñu ko accusé ni jugé wuñu ko libéré ko euh, mais également vol mais sénégalais yi ils sont en droit de savoir même Ousmane ko a droit à un procès pour que ñu xam ndax moom moo def li liñ ko wax wala def ko mu leer ci boppu sénégalais mais ñun dañu jarul leeral mu am ay xale yu góor yu ne d'accorduñu ci ay événement politique ñu jël ay cocktail Molotov introduire que dans un bus ñu rey ay nit mu am ay nit yu dem université Cheikh Anta Diop Dakar ñu ne ay force occultes ñoom ñoo ñoom ñoo brûler brûler le temple du du du, du savoir mu nekk un crime ak tant d'autres actes yoo xam ne Euh, def nañu ko léegi on na fait pas la lumière sur sur ça on ne donne pas la possibilité à ces gens-là de plaider leur cas ba ñu xam ndax ñoom ñoo def am deful euh, ngeen xëy rek nañu ne dañuy voter une loi d'amnistie pour amnistier des faits des délits et des crimes entre deux mille vingt et ak deux mille deux mille vingt-quatre est que du loolu moo tax. opinion di interroger parce que toutes les lois d'amnistie yi am yëpp la peine a été purgée même les grâces qu'il y a eu les grâces de Khalifa Sall les grâces de Karim Wade gars yi dañoo purger seen peine ba pare et d'ailleurs à l'époque pour le cas euh, Karim Wade bu ñu ko interpellé Wade au nom de ses relations avec Wade qu'est-ce qu'il disait il y a la séparation des pouvoirs je ne pourrai intervenir qu'à la fin euh, de la procédure il faut qu'il juge soit jugé et condamné man sama ba ba kii yëpp jeex ba procédure yëpp jeex su ma koy baal ma mun koo ma mun koo baal pourquoi cette fois-ci on n'attend pas que justice def liggéeyam pour le bien des personnes accusées ñu mën a laver seen dignité sénégalais yi xam ndax dañ leen accuser pour euh, entraver seen marche présidentielle parce que aussi y a la soupçon euh, wala dañ leen accuser parce que li ñuy def ñoom ñoo ko li ñu leen ji ñoom ñoo ko def d'autant plus que ce sont des très très très grave kañ la état daan pardonner euh, des actes de terrorisme kañ la état daan pardonner des actes de nature à compromettre la sécurité publique pose vos questions brillant contre la loi d'amnistie non je fais pas de plaidoyer contre la loi d'amnistie en fait on se pose des questions pourquoi c'est quoi c'est quoi votre intérêt est-ce que tamit du beneen finalement on peut se dire que Ousmane Sonko li ñu ko accusé yëpp dara amu ci da tegul ci dara. non il faut d'abord comprendre que amnistie bi président moom du ko décider de grâce moo koy décider grâce day indil ma décret bi indi nga indi mu signé grâce mu jeex. Eh oui mais on connaît le mécanisme. Attention. il est très huilé ça va passer comme lettre la poste. attention mais en tout cas la décision du point de vue juridique la décision d'amnistier n'est pas prise par le président. d'un acte législatif, émanation de l'Assemblée nationale, qui pa amnistier ou pas. C'est une loi. Donc loolu assemblée la il faut d'abord ñu arrêter ci pourquoi pour moi mu am solo parce que ça veut dire qu'il va y avoir un débat à la représentation nationale il va y avoir un échange entre les députés il va y avoir un débat devant l'opinion publique les éléments que vous avez tout à l'heure éloquemment évoqués mais d'autres peuvent l'évoquer là-bas la représentation nationale va être éclairée sur ça premièrement deuxièmement pour man les fekk que vous avez évoqués sont très graves et mériteraient peut-être des procès mais quand vous avez la responsabilité d'assurer la stabilité politique d'un pays l'unité nationale parfois mu nga def ay arbitrage arbitrage entre organiser des procès sur des événements douloureux qui ont secoué l'histoire de notre pays, qui ont fait des morts et des morts avec ce que ça peut emporter ou ce que ça peut impliquer comme conséquence ou instabilité pour le pays. Ou alors, nga ne non, il faut privilégier plutôt le pardon, la réconciliation nationale, l'oubli, bien que c'est douloureux. Parce que les, les faits amnistiés sont toujours des faits douloureux. sont toujours des faits qui ont de toujours des faits qui laissent des traces douloureuses sur l'histoire ou le corps social d'un pays mais da ngay def arbitrage mayoon na gouvernance arbitrée gouvernance arbitrée c'est arbitrer entre des situations qu'est-ce qu'il faut privilégier aussi les procès les jugements avec ce que ça peut apporter comme conséquence ou alors le pardon la réconciliation l'unité nationale le président Macky Sall a lui pris la responsabilité historique après cet arbitrage de privilégier l'amnistie a-t-il raison ou tort l'histoire le dira devait-il le faire ou pas ça ne dépend que de sa propre conscience était-il habilité à à, à, l'initier ou pas c'est de son ressort de compétence a-t-il le dernier mot non c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot C'est lui qui promulgue. Non, oui, mais les derniers mots, c'est Si l'Assemblée ne passe pas, il a pas de promulgation. Alors que lui, il est obligé de promulguer. Dès lors que l'Assemblée vote la loi, le président n'a pas. D'ailleurs, ah, Bien sûr. D'ailleurs, le président ne promulgue de l'Assemblée promulgue. C'est ça que la Constitution du Sénégal. Si le président ne promulgue pas dans les délais indiqués par la Constitution, il y est La Constitution dit il y est procédé par le président de l'Assemblée nationale.